koo nit hmm. ci xol dama ciy waxtaan yi ñu naa ma laay man de yàlla nga am doom ju mel ni tons moo ma gën a doom ju mel ni pambay ndeysaan <laughs> mbaay barke hmm. xam nga dama dugg sa live gars yi ni ma non laay kii day saaga Pikine man la kii fi muy waxee pikin généralisé wul te man tons comprendre wul géeje waaye gën a bon waa Pikine téeméeri junni te nag dangaa war di wax ci géeje waaye parce que Pikine nag mu naa ah, ko drapeau laa fa de te yow yàlla boole nañu te dégg naa lu nekk sa dugg bi ma dugg sa live. mais mais loo xam ci géejewaay tey bu ma a wax. ay doomu xaraam bu ñu dàq wayaan foofu noonu fa lañ dëkk xaaj bi yëpp lañ dëkk de. comme kan comme kan. du du lan la tekki Sénégal. Ah, ay Fadam 2 lan la tekki Sénégal non bambara la. waaw dama laaj ay Boucher ay Fadam 2 wax ba wax ba bokk ci réew mi lan lañ ba ban njariñ la am. waaw ah, mais Boucher nag du Sénégalais du Bambara la. waa Mali la voilà fan la dëkk géejawaay faram de géejawaay la dëkk. dafa dëkk si ku Mali la jógee nag bu ma Mali la yow tamit. moo tax dellaal géejawaay parce que ñoo ñëpp dañoo jébbali ci yow salaamaaleykum ñu jébbali ci yow di la woo di daw làqu. Pikine ay góor yàlla ñoo fa dëkk dama la a xamal ni la tons Pikine hmm. ay góor yàlla ñoo fa dëkk. góor jigéen bu ñu mësaa gis pikin dañ lay noq. ay hmm. pamba yi yëpp xoolal. ay am soosoo mas na ma woo ni ma laay gee maa lay yar xoomal ñu dugal ma xoom xoola yàgg na benn gel dugal ma sama live ni ma laay am soo nee na dañ ko xam naa laay gi mais bi mu duggee ma ko yow ki nga dugal nii kan la appel à trois mu ne ma am soo la ma ne ko ban am soo mu ne ma am soo ma ne ko mais yow am soo nga dugal yow appel à trois man laay gi mu ne ma waa ma ko non non non non yow yow yabee woo ma noo mu ne ma non mu nee na xam na la ma ne ko mën a xaritu góor jigéen sama àdduna non mais am sa zo dalaa dafa ne dalaa nopp wala. non dama am sama benn jigéen dafa ma mës a wax dañuy waxtaan xam ma man dama bari ay nante yoo xam ne waxtaan mu dugal am zo xam nga xale jigéen yi dañoo bari ay xaritu góor jigéen. léegi mu ne ma mu dugal appel. gël bi mu dugg rek ni waaw laay si loo nekk yaa ngi ci jàmm ça va profito quoi léegi man ki wax man waa kii de gagné na ma gagné na ma quoi léegi man comprendre ma mais gis nga bi ma dee ba ci biir man ne ko waa kii. mi mu ma doon woowaat ba léegi comprendre kan la ma ne ko kan mu ne ma Amzo ma ne ko Amzo man mu ma mel ne ko non yow yaa booy woo ma di ma jël góor jigéen laay gi nga xam ne góor jigéen rek la contre ci àdduna nga may wax naa ma Amzo nee na ma xam na ma man mu ne ma xaaral ma ñëw ñàpp ndayam parce que moom daf maa bëgg a saraxee kërëb kërëb ma ne ko Amzo bis bu génnee sama appel man a moom naan laay gee laa waxtaanal mu naa ah ma ne ko yow dootoo ko dolli man naa mën naa lay jéggal façon jéggal bu nekk waaye loolu laay xaar loolu rek laay xaar ñoom nag day day nekk ci dañuy doxaanu nga rek de aadam moo ñu bëri moo leen may góor jigéen aadama xeex xeex góor jigéen la njëkkee woon waa daa dem ba si biir mu jaay drapeau xam nga xaalis mën na lu ne ah maa xaalis mën na lu ne mais moom franchement moom ci góor jigéen gi la nekkoon bu njëkk moom da daan woote góor jigéen xëy rek changé waa dafa xëy changé ñoom ñëpp commencement amul lu ñu yàqul pambay fii ci digg dëkk bi xam nga Sénégal waa Amérique dañ leen ñaan ngir yàlla nañ rey Pambay parce que mooy influenceur bu mag bi ëpp influenceur bu mag bi góor jigéen mooy Pambay dañ xam nga Amérique dooroon nañ ko fi ay bal mu mooy buñ ko rayoon Sénégal day xaw a normal. si ku tax ku tax rayam kaay mën nañ ko organiser de. mais dañoo war a rey góor yàlla yi nekk foofu noonu ñi nga xam ne ay góor yàlla lañ. Pambay di jox kàddu Sénégal damaa bëgg ñu doxaan ndeyam foofu noonu parce que kii société bi mi ngi koy yàq. doomu xaraam xanaa xamoon ne laay gis nga laay sénégalais yi bu ñu defoon benn cotisation woo benn kaana américain parce que sénégalais moom du ko laal mais ñun Sénégal moom nañ def benn ket def benn ket benn som benn noir américain explique ni ko boo rey boo ñu reyee lay waa ji waaw ñu fay la mais américain mën nañu rey ndey wax xamoo loolu dañ ko war a ray nag parce que mi ngi yàq jeunesse bi di leen dooleel ku ñu bëri ñemewuñu wax naan noo dangay par sax ñu naa la lay gën nga dugg ci pambay jàppaleer ku du affronté bandi yi daa faale nday góor jigéen ku ay bandi xeex sa indépendance ba heure bii da ngaa faale nday góor jigéen buy wax pourtant yàlla xam ne Pambaay mën nañ organiser assassinat am gars yi da dañ yaakaaroon ni Pambaay ñun moom mënuñu ko laal mën nañ ko booleeg bandi américain ñu rey ko parce que ñooñu dañ koy tiire ci ci dara Pambaay comme que américain moo koy tiire bal ci ay ay cafouillage kase ay romb ko Bambay yëngal tun rek nañ ko tiiree ah yëngal bun yëngal bun la doon def rek ñu tiiree ko imagine ñu jox leen xaalis dañuy rey na dañ koy rey. man de maa ngi ñaan yàlla rey Pambay doon doy doy na jaamu yàlla parce que mi ngi yàq jeunesse bi ah Sénégal mi ngi yàq di influence nit ñi di jéem a dafa am kàddu ban Séné ñun ñun dañoo war a am ay jabar am ay doom ñu nekk ci TikTok bi ñu leen di jàngal diine. pas ay góor jigéen di am ay influenceur di wax. nit ñi di leen déglu te koo ni ci yàlla nga am doom ju mel ni pambay nga bañ caga rek la juruñu lu baax te ñoom ñëpp ancien ancien caga ju génnoon ji la rek jigéen ñu génn yi rek la tàmm nañ la bañ te ancien jaaykatu lëf rek ñoom ñooy xëy ànd ak góor jigéen góor du ànd ak moom góor góor du ànd ak moom non non ku jur lu baax du ànd ak góor jigéen billaay wallaay du yoon du yoon góor jigéen mais ñoom ñëpp xëy koo ci gis en seen caga yéegal ñu ngi ak seen góor jigéen balaa ñuy am leen neex sax ñu am xew doomeraam bu ñu bu ñu jaayee seen lëfu doom góor jigéen ngeen koy animé mais góor gor jombal na boppam dib na ay doomam di invité ay góor jigéen ba pare bu ñu toogee naan la sama oor yi dañoo sañse dañoo soxor tons man bu ma duggoon sama kër soo ma wooyee ma génneel la takku xaalis boo xam ne dama koo liggéey ah man kan moo may woo di ma laay xaay ma wax la benn affaire Sénégal ñëpp ma xam ndaanaan yëpp samay xarit lañ waaye xam lan lañuy wax laay kenn mënu ko maîtriser parce que dafa gëm boppo te muy dëgg gor da gëm sa bopp. nit da ngay gëm ndey sa bopp yow yaay kan bu dee góor nga bu dee jigéen nga da ngay gëm sa bopp bàyyi dunguru gëm sa bopp góor jigéen yi ñuy jël di leen déglu ñuy topp ay kaa di wax salaamaaleykum te kenn ñaanul yàlla. am mel am doom ju mel ni kenn ñaamu yàlla am frère góor jigéen wala lenn ah mm-hmm. ay nabu lay mii ñu jël ko di ko taqal di ko kaasa lan la mooy am na loo xam ne nabu da kii kii dee na essan tunni bi li ci nekk lépp état bi da ciy teg tànkam xam ne li ci xew mm-hmm. maa ngi déglu magu magu magu magu magu ku góor ki ñu rey ba demee yow man kan mooy rey sa kan mooy rey sa frère nga toog plateau naan jàmm laa ko yéene mu génn ak jàmm mais nante xanaa duñu xalaat. day bañ mu wax. nante xanaa duñu xalaat. nan la nit di raye sama frère man may toog plateau naan nabu Leye jàmm laa ko yéene ñaan ko mu tourné waat ay njabootam loolu nit ñi seen xel yi lan la war a dem ñu xalaat lan moo xew lan la ñuy baabee Nabou Leye lan moo xew wala nit ñi dañoo ñëw ci àdduna ko seetaan mooy bul wax li nga ko xamal. voilà mais loo parce que nit ku nekk à tout moment mën na ko sulli di. voilà nit ku nekk nit ku nekk am nga loo xam bu dee nag da nga ñëw si seetaan si. parce que coowal góor jigéen ñu koy déclassé léegi bëri parce que boo xoolee influenceurs yëpp ñëpp ñu ngi weef nañ leen. aariste nañ leen am na lu ñu xam si ñoom ñu ngi jëflante bokk seen groupe WhatsApp. ils sont là. man xeex góor jigéen jaral na ma dee. góor jigéen xeex ko barki alxuraani karim jaral na ma dee ay doomu xaram lañ yoo xam ne ñoo yàq ndey dëkk bi. doomu sarum ndey mi naan dama jongo ma ak namu ma kooy ak ma lëf. loolu ak tànk nit sénégalais yow 100 pour cent ngay déglu loolu di ko déglu di reetaan ah mais loolu du yëfu gor. loolu du yëfu góor rek ñun ñun góor ci dañuy dee ba dee dañuy dee ci ngor ñun ay bandi lañu nga séeréel ñu bandi moo ñu gënal séeréel ñu góor jigéen isaama dëgg doomu sarom ndeyam yàq ndey senegaal dañ leen war a taal ah Pambay waa Amérique ku ko mais pourtant nag laay dafa am benn affaire bu am solo bi nga wax ci par exemple assassinat Pambay ah, amoon Pambay yàlla bi ma tiim waaw Sénégalais am na ñu ñuy amee fulla am fayda ñu organiser associé xamoon ne rey nit ku nekk Amérique moo gën a yomb nga loo gis. dëgg la. mën na nekk ñun mën nañ sa mën nañ ko organiser. affaire bi xaalis kese la xëy créer benn cagnotte. wut mhm. benn tueur c'est c'est am na ay tueurs en série ñoo xam ne rey nit mooy seen liggéey. am na am am na am na ñoo xam ne da nga leen di fay ñu reyal la nit. mais dëgg la. waaye mën nañ ko nit mën nañ ko mën nañu wut tueur en série mais fekk mu rey Pape Mbaye comme ça mu jeex xam nga ni Pape Mbaye tey bu ñu ko reyoon Sénégal lu bëri dina fi changé non yu bëri dina changé parce que état bu bees bi nee na day jubal def lépp nit nag kaamax la benn affaire góor jigéen ñi bu ñu leen éliminé rek dëkk bi commencé defaru jël góor jigéen ñi bu ñu ñàppee seen nday rek ray leen ah dëkk bi commencé defaru diine gi ñëw mel nam meloon waaye góor jigéen bu demee ba ñëpp di ko seetaan foo tourné ñu koy taf ñu naan la noo déggal li Pambay wax ñii ñoo bon sénégalais ñoo ñoo bàyyi seen culture. mais mais xoolal góor jigéen bi nekkoon wala naan maa ngi ci xaw ma euh, euh, euh, xaw ma xaw ma lan maison blanche bu Biden gi. waaw yaa ngi gis biir biiru paq paq bi mu ngi naan taxaw naan waaw gis nga ne maa ngi yàlla mën na lu ne. alhamdulilah samay noon mais am góor jigéen ak am am nawle. waaw réew Sénégal da ngay gis góor jigéen bu taxaw ci ay ay palais c'est-à-dire dañuy war booy ni ñoom. waaw en yàlla may na leen teraanga cest à lool que loolu la ñuy gëmloo xale yi. maa ngi ay États-Unis maa nga ca mhm. palais Biden. maa ngi ci ay ay ay yacht maa ngi ci ay bateau. maa ngi ci mhm. ay hôtel. maa ngi ci ay passeport diplomatique ñoom noonu la ñuy naxee xale yi c'est-à-dire que alalu àdduna. la ñuy jéemee naxat xale yi mais du lu baax loo xam ni. Euh, l'islam gërëm na ko diine gërëm na ko iman gërëm na ko toujours dañuy wan xale yi ni am nañu barki alxuraani karim no lu leer nga tons man dama lay déglu dama bëgg képp ku dëkk pikin nga gis ma may waxtaan ak tons dama bëgg nga jël sa temps bul xool Pikine ni tons ci Pikine lay wax déedéet dama bëgg nga déglu ko xool kàddu yi muy wax ñu déglu ñu déglu gis nga ay ay gor waaw ay gor ñàkk d'accord teewul ñu waxtaan dëgg la. ay gor noonu lañuy def ay gor duñu marante taat. ay gor mhm. dañuy waxtaan di laale. si la njëriñ di génn. dëgg la adduna noonu la ñun ay gor la ñun senegal ay doomu gor lañ dañu xam ay débat. ay laale duñu marante bun ñu waxante lu neex si xeexoo. ak mhm. jokkalante si la xam-xam di génn. dëgg la. di faut que nit ñi xam loolu nañuy teg ay débat d'idées di ko débattre di xëccoo ñàkk d'accord mais bu ñu bu ñu amee comportement yaa euh, caapataat yi nga xam ne koo ci koo ci wéy mun na xoolal am na benn gars bu ñu xaw ma sëñ Bada la xaw ma waaw gën a nekk doomeram kuskondron boobu maa ko présenté woon Pape Diouf sëñ Bada maa ko présenté woon Matar Diop suba teel ñu tëj ko fi kaso mata Diouf nekk Amérique yëkkati cinq cent mille fay coow li ñu génnee ko kaso woo ko këram teral ko yëkkati ay yére may ko boole ko ci nit ñi ni ko gëmal sa bopp bi bu Pape Diouf bii Sidi Diop bi daa waroon dem ñu saraxe ko ci Mauritanie boobu mu demoon bu waali bi ci lañ ko saraxee dematul isam bi mu toogee naan Sénégal bi du am annulé nañ ko ci laa ko bloqué parce que man àndum gor laay non mm, attaque man aw ma jëkk waaw. laay laay nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne couche contraire boobu Serigne Bada yéen a dañ ko doon dañ ko tëjoon dañ ko tëjoon. non xam na am na benn xale bu jigéen bu mu amaloon problème mu dénkoon ko xaw ma 2 millions xaw ma 3 millions mu lekk ko. léegi nag xale bu jigéen boobu ci boom sax moom xaalis bi daa war a lekk ko parce que ku am ay waajur. am famille mm-hmm. am leen xam ni ci tiktok bi di bëgg tur yëkkati sa xaalis jox ko kooku bu ñu ko lekkee ci ñi ko wax lekk ko ci laa bokk. waaw man ci laa bokk man duma ma yër sama xaalis xamanteeg benn tons ñuy salaamaaleykum di wut complexe di ko yëg di ko jox te am ay mbokk loolu ci complexe la bokk dëgg la wala dëgg. <laughs> gimiñ waxul dëgg rek wax fenn. mais mais mais attends contrat boobu sëñ Bada kan ko doon dénk di ko wan ne am naa xaalis xam nga man damay guerre xam nga gars yi man tey jii nii kaa ma wax la benn affaire xam nga man gem bi dama cee yàq xeex façon xeex bu nekk maanaam di wan ne laay am naa xaalis man ñi ma doon guerrandoo daaw daawaat jéeg yëpp jaay seen drapeau man rek maa jaayal sama drapeau. Europe. ñëwuma fii taxaw fi taxawaay boo xam ne ku ma ñëw man damay dalalaat koo ma fekkee sama kër maa ngi dund jàmm doon VIP cent pour cent kenn defuma ko dama ko indaale ci réew mi aw ma waa Wally Seck mii nii kaa wax la benn affaire ci ñu ko taal Pikine ci laa bokk première cassette am daf ma teewaay boo demee Pikine fekk fa laay VIP capo di capo kan kan Fadama Yambaréne di waaw capo di capo man way na la yow man pikin lañ ma fekk ma samp fa ñun ay doomu pikin lañ boo duggee dafa am buntu ñun la kii mooy. laaj non mais attends attends attends laay attends waaw yow Farama Yambareen gi ci lan la lan la sukkandikoo ba di la way. mais man pikin boo fa demee ñun la laay VIP loolu ñu indi la laay am na loo xam ne boo dugg ci boo dugg ci secteur dan naan la jaaral ci borom kër gi. ci la ñëw. kon Farama Yambareen bi ñi ko taal si nga bokk quoi. non maa ko taal. première soirée maa ko waroon mën a tëgg pikin première soirée moo ma yóbbu ci papaam coon yàlla ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana kàppoo di kàppoo la ma way boo demee pikin fekk fa laay VIP ab man amul benn waykat bu ma apporteel dara ku ma bàyyi ñàkk maa way intéressé ma parce que man xam laa séq ak ñoom baatare baatare laa séq ak ñoom tons man ñaari kalpe laay doxantoo kalpe bu nekk 1500 euros mi ngi si isi amay déglu ah pour baate samay damay xalpe bu nekk 1500 euros mi ngi ci. si amay déglu man ay laa kenn defuma ko ku ko ku ma ko def téeku <laughs> ku ma def ay rek téeku. si amay déglu yu mag yi la bokk. lu leer laa lay wax lii lan la su ma neexee léegi ci mbedd bi laa taxaw sama xalpe 1500 euros mi ngi ci. moom bi waaye beneen calque 1500 euros mi ngi boo ma woowaatoon léegi boo ma fëggee ma génne la benn vingt mille euros léegi nga gis ko sa taabal man kon nit ñi ñuy fay deux millions cent mille francs nekkuma ci. Issa ma déglu aw ma sens interdit Issa ma ñaari calpe yi yëpp ma lay woon benn bu nekk xaalis moo ngi ci fëldu bi ma yor deux mille cent euros laa ko jëndee kaas rëdduma ko lebuma ko. kon man ku gëmul sama bopp sunu borom damaa teral ci gëm sa bopp kon jeunesse bi dama leen di gëmloo seen bopp ñuy bañ a jaay seen drapeau lu fa waaye xaar da ko fay fekk ñun ay doomu gor lañu. isa amee déglu ay hmm. doomu gor lañu ah nit dangay gëm sa bopp xaar sa wàll bañ a topp góor jigéen ñi. doomu xaraamati mais mais ma delluwaat ci Faraba gi. expliqué ma soirée noo ko tëggee ban soirée nga tëgg. non xam nga dafa am benn booy ñun pikin dañoo am gang boo xam ne waa VIP bu ko dégg xam hmm. waa VIP. ñu nekk fa nekkoon ay jeunes yoo xam ne bijoutier lépp lu ñu bokk. mais attends dafa am ku ko oto. mayu ma ko oto. waaw loolu commentaire yi wax la rek man mayuma ko oto man damay wax li nga xam ni. Ah, vingt ans boo ma ko laajaat ma ko. Ah, mayuma ko oto parce que man sama jëmi bopp aw ma permis te bëgg naa jënd permis wala ma ut permis di dawal hmm. kon man du ma yëkkati kenn di ko may oto te ab géwël la comprendre naa euh, waxu géwël la dañ lay duulal ba pare xëy ni maa la duulaloon fay duul ji waaw dañuy jaay duul nag géwël dañuy jaay waaw léegi nag dañ lay duulal ba pare dina la ko boo melee na nga mhm. war mel dëkk boo fa ñëwee par force dinañ la fëgg mhm. ni la ala diw laajteel diw loolu yaa koy xeex man képp kuy ànd ak artiste ñeewuma la parce que li ma séq ak artiste mooy baatare ñaanu ma yàlla artiste di ma may saa yu moom artiste may damaa toroxal jàmm laa séq ñoom nga déconné ma teg la ci yoon ni la li nga def c'est pas normal isam la parce que nit boo demee ba mënatoo wax dëgg da nga am njëg kuy wax di sóoraale ah, ah kuy wax di sóoraale amoon liberté liberté nag boo ko amee kon nit tons toogee mooy gëm sa bopp moo la koy may waaw kon dañuy wax ñu jeunesse bi nañ gëm seen bopp xam ni artistes yëpp mayuñu fi nit loo xam ni yéem na leen ay dañ naa la may nañ la oto ah may nañ la lii liñ lay may lépp boo liggéey gëm sa bopp mën nga ko am. mais mais mais laay nañu waxante dëgg. waaw yéen ñu nekk ci showbiz bi nañu waxante dëgg parce que showbiz bi góor jigéen gi yëpp fa lañ nekk. waaw mais yéen ñu nekk ci bis bi di baat rek di organiser rek di organiser am connexion band yi. mais naka ngeen di. waaw naka ngeen di dëkkee góor jigéen ci showbiz bi. waa xam nga xam nga tey ñun Pikine eh, dafa yaatu boo yoree yenn comportement yi maanaam daa am fooy yam ak foodul yam parce que am na ñoo xam ne boo tëddoon ba gudd ñun la kañ dem kër diw da naan yii waxal ak moom ñemewuma ko Pikine dafa yaatu waaye bëri na ñoo xam ne ñu ngi mbubboo Pikine waaye dégguwuñ tekkiwuñu dara pikin Aziz Dabala ñu si bari ñi dee na waaye Aziz Dabala am na ay kon ni ko nit ñi di suivre nii ba mu dee ñu bëri xamuñu ko woon nooy ni mel nii ay vidéo la ñuy génnee rek waaye Aziz Dabala wax dëkk fay yàlla daa nga toog sa estati bu dee cent personnes ñoo lay seetaan di nga xëy soo ba ngoon too gis ku dugal Aziz Dabala. kenn du ko moo xoolal kenn suivre woon sax. voilà léegi nag sénégalais ñoo yor jikko boo xam ni. ah buñ la gisee nga yor yenn melokaan yi ñun la jiw da war na changé nga dee ñun la ndeysaan ay waaye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xam loolu moo tardel Sénégal. waaw sëñ Bada sax mi ngi ci. <laughs> sëñ Bada Loberaam Ndiaye noonu ci Sénégal. isan damaa bloqué mm-hmm. ndayam mi ngi may tagg fu nekk laay sama waay la man gëwma nday affaire nit présenté la nit nga war taxee coloré ngay cenc man gëwma loolu. Mm-hmm. man gëwma ndey loolu. parce que man awma sens interdit jaayuma trop sàcc ma awma sens interdit. kenn mënuma jënd ci àdduna amul noobu laa doomu gor laa di bala may sa mais mais mais tontu woo ma de léegi laaj ma ni waaw ñun ñëpp xam nañ ni. Mhm. góor jigéen ñi ñoom ñëpp showbiz bi lañuy ñuy utiliser pour def si leur propagande. tey boo demee ci showbiz bi. kuy dëgg soirée góor jigéen ñëpp dañuy dem. ak caga mais yéen ñi nga xam ni yéenay euh, nekk ci bis bi di def ay batterie di ko organiser te laaj nañu wante dëgg même gars yi di way yéen yéen a leen connecté ak bandi yi parce que tey même waali mm-hmm. waali bu mëggee ñëw pikin pour dëgg tëb combat dëgg pour def soirée waaw ay yéen band yéen band yi yéen ay wax woyu yi sécuriser mm-hmm. leen ville bi parce que sécurité nekkul ci biir sécurité ma nga nekk ci biti te band yi ñoo koy sécuriser. waaw te yéen am connexion ak wéyu yi. même li ma bëgg wax mooy. Hmm. milieu boo xam ne góor jigéen ñi fan la ñuy defee seen propagande ca la ñuy nekk. waaw ak yéen nandite yi nga xam ne yéen a géré wuyu yeeg. band yeeg nekk ci showbiz bi yooyu. parce que yéen ay feeñ mais góor jigéen ñi du ñu feeñ donte ñu ngi ci biir góor jigéen ñi dinañ leen dinañ bëgg dugg ak yéen dinañ leen jéem a doxaan nag comme am zozo mi hmm. dina doxaan dañoo xamante dëgg am zozo dal doon doxaan. ñoom nan ngeen di dugg dëkk ak ñoom non am zo da doon doxaat ñun xam nañ lépp. Mhm. waaw xam nga xam nga tons maanaam euh, ñun pikin lépp lu waay bëgg ma nga fa maanaam ñun man damaa toog boobu Pape Diouf ginnaaw raay day ñëw chaque dimanche ñëw di football si tuddee ñu soirée ñu nekkoon nit ñoo xam ni dañ ñoo xam ay Mamar Gueye Ndiame Gueye ñu nekk ay ndaw léegi nag jeunesse bu déggoo yor ay oto fu ñu dem dañuy baatare nekk ay ay bala may sax léegi nag noonu benn xaritam ni ma laay damaa bëgg présenté la waali Ousmane Thiam dogo mi muy taf ci wetam chaque jour ak Ousmane Thiam ñoo ni ma laay dama mhm. bëgg a présenté waali ma ne ko yow de booy ban waali mu ne ma ma ne ko yow booy booy bu ma yëpp nga nag mu ne ma lu tax ma ne ko waa yow booy bu melokaanam ak li may dégg ci moom mu ne ma baay faal la ma ne ko ngari ma noo bàyyi fàll laay li ñuy wax noonu du dëgg xam nga jamono jooju booy bi daa ñeme ay baa tombe si amay dëgg waa xam nga jamono jooju ay baa tombe xew Pikine nag boobu da gis laa bàyyi faal bi ngay takk takk placide waaw waaw waaw sama lu dëgg lu njaab def yëfu mm-hmm. góor bu ñu xëyee wax la wax mm-hmm. yooyu day yéemu ci yow léegi nag noonu noonu sama gars yi ma leen dégg ngeen diw nee na ñu ne ma ah laay bul siise bi mu ñëwee nag wax dëgg fa la yor comportement tey nuyu ma jox ma cër laay naka mu ci loo nekk kërëb kërëb affaire yooyu quoi ñu invité woon ko benn gàlle gale bi eh, sama benn gàlle gayan bu nekk foofu son place suñu mu dem fa bu ñu fa ñëwee wax dëgg fa yàlla def yëfu góor yàlla ma xamee ko affaire góor woon ni mu siwee non boobu siw lan man waa ba tey maa gën a siw waali maa ko pu coow ba tey maa ko pu coow maa gën a siw maa gën nekk noobul alxuraani karim non yéen a ko invité woon foofu quoi pour ñu présenter ko boobu chaque dimanche dañuy organiser match yi ah dima ay alsaan jigo ñuy fay quarante cinq mille ñun gang beeg gang muy jóg wesu faar di ñëw isamu la affaire bi nekkoon lu nice boobu noonu moom moo dëkk kër soxna ay dara jili mbay dama ko fa doon fekk Aziza moo nekkoon ménageur am isamu la kan mooy soxna ay dara boobu jabaram bi soxna ay dara jili mbay fi mu dëkkoon dama doon dem ba ci néegu sarale bi isamu la kon kon kon waa kon kon ay dara Pikine la dëkkoon Mohamed non non Jili Mbay Jili Mbay Dakar Jili Mbay. Jili Mbay boobu soxna dara soxna dara doomu Pikine la. soxna dara doomu Pikine la soxna dara maanaam nit la boo xam ni nit ku baax la soxna jigéen la. ku silence la ku jàpp njàmburam la. est-ce que ñun ay góor yàlla bu ñuy xeex dañuy xeex xeexu góor yàlla dama lay wax ne la ci waa affaire da waali lu tuuti la rek parce que tey jii ñi nga gis ñi ñu topp waali démb ak barki démb nangu lu ñoon waali waaye xam nga xaalis daa mën lépp waali xaalis daa mën lépp yéen a fekkee lépp voilà man maa fekkee lépp man kàppoo de kàppoo la ma way bi mu xuleeg waa Pikine dañ ne ko man waa Pikine nañ ma bàyyi ñoo xam ki taxoon ma may ki taxoon ma fay ñëw laay VIP tukki na man bi ma tukkee dañ ne moteur bi dem na xam nga moteur oto bu moteur demee du taxaw du dox. kon waale dana leen man même boo ba bàyyee ki fa ki ma toxoon ma fay ñëw mooy laay VIP te dem na. parce que alxuraan karim bu ñëwee fii Italie gars yi ni ma am ñoo xam woo ma ni ma laaj nañ dem man leen man ma déplacé wu dem soir waale daf may fay cinquante millions. non attends attends laay attends laay c'est-à-dire da leen a soxla woon di ñëw di leen fekk ci seen ay milieu pour ngeen intégré ko. waaye yow boobu noonu kër maamam daana ñëw ba ñibbi du dem kër maamam ñoom buñ koy wër si danaa ma dégg naa booy bi ñëw na fii sa place laay waaye léegi ku lu tekki lu nekk am ay borom ñii taxaw ñii ñëpp naan ay mbokk laa ñii fii la xarit ju bàyyi man damaa fekkee man damaa fekkee démb ak bërki démb moo tax léegi ñu ni la ñu ni la laay kaa ñu la waa ji nga ni noo waa ji man ñemewuma ko mais ba mu ñëwee après bi mu ñëwee taxaw taxawaayu gentleman yaa ngi sóor loo ne yaa ngi koy xool ci moom waaye gisoo ko ci moom dëgg la léegi nag ñun laa vie continue après noonu dañuy dem pénc ma première partie lay way après papa ji après man maa nekkoon seule personne wala deuxième personne boo xam ne buy way man maay ñëw di ko battre mille francs deux mille barki alxuraani karim billaahi wallaahi. waandi bu mosaan woy yow yaa koy battre deux minutes. waaye yow coow lee bari kenn ku nekk. xam la tons ñi war ta wax rek kay wax gis nga ñiy wax ci réseaux sociaux yéeg yëpp. koo ci dugaloon ku bokk ci staff bu la neexee nga organiser ko ñoom ñëpp. yow li ngay wax sañ ko mille sept cent personnes te te dama lay wax ni la man dugg naa ci live bu nekk amul ku ma mën a dévier li may wax man. ak fu mu mënti doon dan naan le waa laay rafetalal say kàddu àdduna amul solo sa waay la loolu rek lañ mën mënuñu leneen mais waxoo lu ñaaw sax da ngay wax da ngay wax fi nga jaar moom mais mais mais première soirée waali maa ko war a tëgg Pikine papam coon seek ndem si àllas moo ne mooy waale pikin mooy raam daan pikin waaye première ñu ne ko man soxlawuñ la waali lañ ba a yóbbu Pikine mu bañ magasin bi si sama jarbaat la mi muy way tañu waxoon moo ko may ceinture or bi isoma sama jarbaat la Talla Gueye sama rakk mi ngi Brescia ñooñu ñooñu maa leen présenté waali nii waali yëkkati wane bi ko kan moo ko may ceinture or bi nga sama benn jarbaat euh, magasin bijoutier gis naa takkal na ko benn présenté sama doom la ko sama jarbaat la tuut tànk la tuut xamul tuut tuut tànk la mhm. ñooñu du ma wax sax ñuy wax tos ñun du ñu wax nit di wax kuy wax ñuy wax rek dañ laa sori. nga yow laay wuyu nga. Uh-huh. parce que ñun nante yi ñoo ñu bëggoon bandi yi ñoo ñu bëggoon xam nga dëkk dëgg balaa nga faa tekki dara nante yi di la xool xam ni ci xam nga nante dëgg wala bandi bëggul feek dëgg la te muy dëgg. nante dëgg góor yàlla dëgg. bëggul feeg parce que nante si deret la. nante ci deret la parce que ñun li ñuy wax amuñu si li ñuy sikki sàkk dañ koy wax nature ak firi doom. ak lu leer parce que ñun ñu ñoo am liberté suñu borom moo ñu ko defal. affaire bu garaaw kon tey yow li góor jigéen ñi ŋànk di ko da di ko darajoo di ko doole woo yéen ko créé ba pare wàccal leen ko quoi. waaw li góor jigéen yi ñun dañuy créer góor jigéen yi ay doomu xaram lañu ñoo yàq ñoo yàqal sax artis yi ay doomu xaraam lañu parce que tekkiwuñu dara léegi la góor jigéen di wax ci kaw waaye bu njëkk góor jigéen daawul wax ci kaw da ngay làqatu. wallaahi <laughs> dafay dëgg dafay dëgg. góor jigéen léegi la commencé réseaux sociaux yi distance sori ñuy ñëw ah ñu naan la diw dafa baax ak wéef la noppiloo loolo ñun kan moo ñu mën a noppiloo ndax xaalis. ndeysaan. ñun dañu ñoo tey yéen leen doon jox ay ñun suñu dee daa war a metti parce que dañu ko war a bind ci histoire. te muy dëgg. ñun ñun dañoo war a bind histoire. Laye Gueye jaar jaaram lii lii gëm na boppam ba dee. te muy dëgg loolu la góor di def loolu mooy moo tax suñu jabar day jafe. parce que ñun jabar bu jàkkaar la yow day xam ni yow man sama jëkkër góor yàlla la. te muy dëgg moo fi def lii moo fi def lii moo fi. def lii def lii. ñun ma sa rivalanteel fekk la foofu dañuy tëj bunt bi ñun gel bu ñu ma saa doxaan. barki alxuraan jamono changé waaye kuñ ma saa doxaan boo déggee ni ala gel bi ñun la diwa koy doxaan yow boo dul góor yàlla dëgg doo fa dugg. Ah, lu a loolu. ah mais non am na loo xam ne sa waay danaa la alalu bande bi nga yor de xaaral ngaa dof kii yow xaaral ngaa dof waay yow yow tons tons dama la bëgg xamal yow doomu pikin laa lay def parce que yow dëgg ngay wax te ñun ay doomu pikin lañ dëgg yu mel nii mosoo ko dégg. dëgg la mais tey ñoom ñoom ñu ngeen xam ne yéen a nekkoon grand Pikine yi di gérer Pikine. organiser mhm. Pikine. tey li fi am yëpp li fi am yëpp. Uh-huh. yéen naka ngeen koy gisee yéen ban instant la leen booy yi parce que yéen tam dafa mel ni yéen koo leen créé rek mu rëcc ci leen waa non ñun ñun xaaruñu retour. xam nga kii def di xaar retour mooy diw am na am na ñoo xam ni. dem samp di jaay boon wala drogue wala dem agressé moo leen gënal féeg di leen may xaalis nante bandi banlieue lu tax mu metti mooy dañuy falaate parce que ñoo gëm seen bopp buñ la gëmee gëm nañ la buñ la weddee weddi nañ la te doo am jàmm ful na romb dañ lay dóor missile yoo xam ne te bandi dëgg boo ko tëjee ci nga gën a am problème parce que gars yi dañ naan la du la may dara bandi kenn mënu ko maîtriser état sax lay négocier ak moom. kon yow ni nga meloon ni nga meloon kii démb noonu nga fa mel ba léegi. waaye man fu ma man fu dem dama koy yóbbaale sama dëkk bi ma nekk sax loolu mooy dox ci man liberté totale Italie fu ma dem doomu Pikine yaa ngi fa. Paris Napoli Italie foo dem doomu Pikine yi duñ la fa déggee nga def estati wala yaa ngi fii ñoo lay woo foo fekk ñu fekk la fa ñu la laaj suñu ferte nga dañ la gëm nit nag loolu du xaalis du dara loo leen jox man su ma jaayee sama drapeau damaa war société bi kon waa Pikine waa Pikine dañ lay ndamoo fii ci kaw bi quoi loolu par force sañ ta bañ xaaruma si ñoom retour man damay dalalaate bi ma duggee ci réew mi la dalalaate am ndaanaa ni ñëw sama kër di toog ngay lekk kilim ma lay rayal xar gaay bu njëkk boo duggee dañuy fay seen téléphone man ku ñëw dama lay dalal ngay dund àjjana man loolu laa xam xaaruñu retour te gang bi fii ci Europe sax da a créé gang bi. waaye gang bi mi ngi fépp doomu Pikine fu mu nekk day yëngal boo demee Brescia Napoli Paris ah Rome foo dem doomu Pikine yaa ngi fa ñoo yëngal ñoo téye gém bi seen loxo. benn genre mafia ngeen fi yor quoi. non li li nekk ci yow mooy yeew tubaab bi du la jaaxal. mooy bi rek mooy dund woyu bi rek. ay mafia mais mais àdduna ku fi nekk da war a nekk woyu boo nekkul woyu nekk góor jigéen. te muy dëgg kon daa mafia Pikine baa ngi Europe. ah. <laughs> mafia Pikine bi. waaw yéen waa Pikine xam ne seen mafia baa ngi fii. waaw ku ci xaw a jàdd yoon duggal ci mafia bi ñu tegaat la ci kot. Hmm. non.